الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi nekk suñu saar wu mag wi di suuratul Aaraaf di war a jël tey ay 138 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gim ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem ngalawaay da ngeen xam ne daje la yoo xam ne bu dee ne it ay beer nde bariwu ca wala amu ca beer nde ga ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaate day moo dàq lépp lu doomu aadama di dajale ci kaw suuf suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ay jullit duñu daje mukk ca néegu borom bi jalla waala ñu tiim ab téeréem di ko jàng seen biir lu dul yàlla day wàcce ci ñoom ak dal ak dal mooy li ñuy tudde sakina mooy xel mu xel mu dal soo demoon tey ca Occident lu ne am na fa bam des sakina amma bokk na luy may jullit sakina di daje ca néegub yàlla bay jàngub téeréem yàlla dana leen yiir ak yërmandeem ca yërmande yàlla moo ëmb mboole mi xéewalam ci àdduna ak alaxira yàlla dana sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen yàlla dana leen tudd ca malaaka ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jataay bi kon incha allah tey mooy ñaar fukki fan ak benn ci weeru safar ci mille quatre cent quarante mooy fanweeri fan ak benn ci weeru octobre deux mille dix-huit ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم سبحانه وتعالى مني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر nii da lañ jàllale bani israil ñu jéggi géej ga fa ataw ala qawmi yaakufuuna ala asnaamin lahum ñu ñëw ci xeet boo xam ne ña nga nekk wër benn ci ay xërëm yoo xam ne ñeel na leen qaalu ya muusa jaal lana ilahan kama lahum aliha ñu ne ay Muusa waaw ñu nit kay defal ñu yàlla comme ñoom ni ñu amee ay yàlla qaala innakum qawmun tajhaluun mu ne yéen de waaye nekk ngeen xeet bu boo xam ne bu réere ngeen inna haulaai mutabbarum ma hum fiihi ñii day nekk na loo xam ne di alku mooy loo xam ne lu ñuy alak la la nga xam ne ñaga ca ci jaamu xërëm wa batilum ma kaanu yaamaluun ca it nekk na ak neen lépp lu ñu nekkoon di ko jëf qaala agayra allahi abgiikum ilaha mu ne waaw ndax keneen ku dul yàlla laa leen di sàkkul muy yàlla ju ngeen di jaamu wa huwa faddalakum ala alaalamin ca yàlla moomu day gëne la ne leen ci kaw mbindaafan yi wa id anjaynaakum min ali firawn sunu borom ne fàttaliku leen ba ma leen di musal ca njaboot ak firawna yasumuunakum suu an azab ñu leen di màndargaal ba ku ko gis xam ko ci yéen la gën a ñaaw ci mbugal yuqattiluuna abnaakum ñi ngi rey seen doom yu góor yi wa yastaxyuuna nisaakum di dundal seen doom yu jigéen yi wa fi dalikum balaau min rabbikum azim nekk na ci loolu ñeel leen day natt bu bawoo seen boroom di natt bu màgg mbokk julit bi ñu fi mujjee daje àllarba ji paase gis nañu suñu boroom dogal na jeexal fitna yi bani israil nekke woon ci biir Égypte daa di jox Muusa ndigal na ko génnal ak bani israil ngeen del dellu fële nga xam ne mooy seen kër maam ca Palestine bi ñuy dem Firawna ki notable am topp leen suñu borom yàlla labal leen mboole seen li ñuy jàng tey nag borom bi mu ne nii la jàllale waa bani israil ci géej ga te boo delloo ci yeneen aaya ci alquran borom bi dalay wan ne Muusa alayhi salaam la jox ndigal mu jël yatam dóor ko ci géej gi géej gi daal di xar def fukki yoon ak ñaar fi ndox mi nekkoon jóg def ay montagne borom bi jàllale Muusa ak xeetam ci xéewalam waaye mbokk géej googu yàlla tàggataloon Muusa noonu it la ka tàggatale ay jaamam ba léegi tey jii da ngay gis ne doomu aadama yi la ëpp ci échange yi ñuy def sikk sàkke nekkul ci ne ci géej gi lay jaar loolu di xéewal gu rëy gu ñu yàlla defal ñu am ay pétrolier ay paquebot yoo xam ne ay porte avions ay nangam daanaka ay dëkk yoo xam ne dañuy toxu dëkk continent en continent jaar ci géej gi loolu ci xéewalug yàlla subhanahu wa taala lañu ko yàlla defele doonte ne ni yal na yàlla musal ñu ci fitna yi nga xam ne moo xew ci suñu réew yàlla waay ab julit maa ngi lay dénk yow sénégalais bis boo xëyee del wax ab lim ci subhanallah ab lim ci astafurlah la nga ca jublu mooy tuub ci yàlla ba ñoo toppee musiba yi ñuy wax ci suñu réew mi nga noonu am na benn vidéo boo xam ne nii bilal càmm mi yal na yàlla sàmm ko moom ma ko yónnee benn waay di firi la suñu borom di wax ne maa leen tàggatal géej ngir ngeen gis géel gaal di ca daw ci xéewalu yàlla mu ne waaw aaya boobu day li muy firi mooy yàlla tàggat géej gaal gi daw ngir xéewalug sëñ diw loolee suñu borom mu ne nekk na ci bépp kawteef ñeel kullu sabar képp kuy muñ mu ne mooy kuy muñ naqarlu sëñ diw ma nga xam ne dañ koy boon ca gaal ga shakuur di sant nag gannaaw ba ko yàlla dellu si ñu ne aaya boobu yàlla nga ko wàcce ngir sëñ diw mooy aaya bu yàlla wàcce depuis quatorze siècle mbokk jullit sahaaba yi di ko jàng taabiin yi di ko jàng alxuraan di dox génération génération génération ba ba yegsi ci ñun ñoo ñooñu ñépp kenn xamu ci woon la aaya bi firi mbokk loolu inna lillahi inna ilayhi rajiun su ko defee kon ñu xam ne xéewalu géej yàlla ko defal ay jaamam xéewalu ko gaal yàlla ko defal ay jaamam loole ngiri doomu aadama yi di sant yàlla jalla wa ala borom boobu nag bim jëlee bani israil jàllale leen géej ndax ñoom sant nañu déedéet sant ñu dañoo ñëw fekk benn dëkk bu ñu romb ñoom ñi ngi amoon ay xërëm xërëm yoo xam ne ay nag lañ yettoon ci xeer yi dajale leen ñuy ay yàlla ñu wër leen di leen jaamu suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam bi kay yàlla yónni ca makka amoon na fa ñetti téeméer ak juróom benn fukk yàlla ca kaaba ga ñoomit waa bani israil ne Muusa utal ñu yàlla bu ñuy jaamu waaye comme ñii ni ñu amee yàlla bu ñuy jaamu Muusa ni bisimilaay jàmm yéen fi ñuy jaar ak yéen ñépp amuleen lu ngeen weex lu dul lii yéen day xeet ngeen bu réer a réer ñii ngeen gis xanaa xamuleen ni li ñuy nekkee mbir la moo xam ni alkaange la neen la lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf ndax man dinaa leen wutal beneen yàlla bu ngeen di yaakaar bu dul yàlla mi nga xam ne moo leen jël gënal leen ci kaw seen mindaa fu ni jamono waaye mbokk loolu bani Israël woote woon loolu mooy nature bi seytaane dugal ci doomu aadama suñu borom daa bind doomu aadama ci fitra ci mu reconnaître ko wéetal ko seytaane nag rôlam mooy taaralal doomu aadama mais yàlla mi ngay jaamu gisoo ko fokk nga am looy gis loo xam ne moo lay jege nga mën nag sukkandiku ci loolu yéefiri arab yi luñ daan wax xërëm yi lu tax ñu leen di jaamu mooy ngir ñu jegeel ñu yàlla maa naabuduhum illaa li yuqarribuna ilallahi zulfa gannaaw loolu itamit da ngay gis ne bi ñu demee ba sunu yonent alayhi salaatu wasalaam yàlla yónni na ko mu ñëw ubbi makka bi mu ubbee makka jóge fa dem di xeex ak waa taif li bëri ci waa makka ñu ngi doog a tuub dugg ci lislaam waa taif amoon nañ benn garab bu ñu daan tuddee zaatu anwaat suñu masaan xëy bëgg a jihaati ak seeni noon ñoom ñépp dañ fay fanaanal seeni jaasi bu ñu xëyee suba kenn du taxaw seen kanam yéeféer yi arab yi doog a tuub ñëw ci yeneen bi alayhi salaam na ko ñun kat ñu ngi nar a xeex ak waa taif te waa taif dañoo am ak si déem goo xam ne mooy seen xërëm dañoo bëgg nag nga wutal ñu ñu nit ak si déem gu ñu teg suñuy arme ngir ñu mën a xeex ak ñoom sunu borom wàcce aaya ne aturiduuna an tasalu rasulakum kama suila Muusa min qablu yéen a ngi bëgg a laaj seen yonent liñ laajul Muusa bu njëkk waaye mbokk loolu événement yu passé la waaye ana cheytaan cheytaan yi ngi dund ak ñun ba tey looloo tax bépp mbooloo nañu woote woo judaïsme christianisme wala l'islam ñu ne dañuy jaamu yàlla cheytaan dina leen taaralal loo xam ne day jëmmala dañuy mën a jëmmal di ko gis di ko sukkandikoo moo tax tey boo ñëwoon ci diini l'islam taaral na suñu xabruy sëriñ si xëbru yooyu da ngay gis ñoo remplacé xërëm yu jëkk ya nit ñi bu ñu jàqee au lieu ñu xalaat dem ca jàkka ja toroxlu julli ñaan rabbu samawati wal ard li ëpp ci nit ñi tey da ngay gis dañuy dem dajaloo ci xabru ya li ëpp ci nit ñi tey li ñuy dénkante mooy demal xabru sëñ diw loo fa ñaan dana am ñu ëpp tey li ñuy dénkante mooy sëñ diw ma nekk ci xabram depuis un siècle yal na la sàmm yal na la yokk ah yooyu mbokk mbir la yoo xam ne cheytaan ni mu ko defee la xawmu nuux def ko ak xel yépp noonu la ko defee xeetu lislaam waaye ngal la way mbokk julit yow mi borom xel xamal ne lépp loo mën a gis wala nga mën koo dégg sa moroomu mbindaa fan la jaamu bu yàlla la yàlla bind ko am nag ruux pour muy jaamu yàlla diggante nit ak jinne leneen lu dul loolu yàlla da ko bind pour yow pour yow nga moom ko sukkandikoo ci pour mën a jaamu sa borom jalla wa ala borom boobu nag mu ne ay yéen bani israil yéen a ñàkk jom ca yéen a ñàkk kóllëre bi ma leen musalee ci firawn mu daan jël seen doomi góor yi di rey jël seen doom yi jigéen yóbbu ca chantier ya ba ngeen mucc ci loolu day waroon ngeen a doon ñuy delloo njukkal yàlla bañ a dem ñuy jël seen xol di teg ci ay xërëm ca it ngalawaay mbokk julit nañ bàyyi xel laaj leen historien ñi fi nekk ñu ngi dund tey mille deux nañ koy waxee deux mille dix huit deux mille dix huit laajal xale yi ak historien yi ñu dellu un siècle ci gannaaw en 1918 1918 la fi jeex benn guerre bu ñu daan tudde première guerre mondiale tubaab yee ko créé ci seen dëkk dogal ñu ci ñëw Afrique buub sunu mboole mi doom yu góor yi am kattan yóbbu leen par force au front loolee lu bari ci suñu sëriñ si ñii joxe nañ ci seen i taalibe ñii joxe ci seen doom ndax sañuñu ko bañ loolu nag lum ñuy won mooy nattu la bu ñu yàlla jalla wa ala nattoo woon suñu demee nag ba yooyu yépp yàlla jeexal ko jeexal la traite négrière jeexal la nga xam ne ni moom mooy les guerres ba tey ñu nekk ci jàmm tawféex ñun ñépp dañoo waroon a delloo njukkal gi jalla wa ala xam ne ci moom dong la jógee loolu tax borom bi subhanahu wa taala ni bi leen waa firaw ne di teg mandarga yoo xam ne ku ko gis xam ci yéen lii lépp nattu la bu tar bu bawoo ci seen borom kon ba ko borom bi teggee wur leen a woon a xalaat jaamu keneen ku dul moom mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
barakallahu fi suñu borom jalla wa ala mu ne wa waatna muusa salaasiina layla joxante nañu dig muusa fanweeri guddi wa atmamnaaha bi ashr gannaaw ba ñu mottalee ko fukki guddi fa tamma miqaatu rabbihi arbaina layla mu daa di mat la nga xam ne mooy digub borom ba ñeen fukki guddi wa qaala muusa li axiihi haaruuna xuluf nii fi qawmi noonu la muusa waxee magam ja haaruuna wuutu ma ci sama xeet wa aslix ca nga yéwénel wala tattabic sabila almufsidin waaye bul topp mukk yoonu ña nga xam ne ay yàqkat lañu walamma jaa muusa li miqaatina ba nga xamee ne muusa ñëw na ca suma diggante ba ak moom wa kallamahu rabbuhu boromam yàlla wax ak moom qaala rabbi arini anzur ilayk mu ne ay yàlla wan ma ma xool jëm ci yow qaala lan taraani mu ne ko muusa dooma gis mukk walakin unzur ila aljabal waaye xoolal ca montagne bi fa in istaqara makaana su saxee ca la nga xam ne mooy palaasam fa sawfa taraani kon day da xel sa nga maa gis falamma tajalla rabbuhu lil jabal ba nga xamee ne feeñu na boroomam ba ñeel montagne ba jaalahu dakka mu daal di koy def loo xam ne nii dafa doon lu mokk ba maase jaalahu dakka an wa xarra muusa sa iqaa noonu la muusa rote doon aji aji xëm falamma afaaq bam demee ba ximmi qaala subhaanaka tubtu ilayk mu ne sell ñeel na la tuub naa jëm ci yow wa ana awwalul mu'minin ca man maay njëlbeenu ñi gëm ñeel la mbokk suñu boroom dogal na bani israil génn nañu nekk ci désertu Sina bi ñu fa nekkee borom bi won nañ won nañu ay kaw kawteef yu mu fa indi ci mën salwa ak salwa ila axiri borom bi ne Muusa alayhi salaam na nga dellu si ci tuuru Sina bi mu doon déeyoo ak moom waaye bala ngaa ñëw na nga woor fanweeri fan Muusa alayhi salaam daal di woo frère am bi Haarun ne ko Haaruna dama war a génn bani Israil war a wéet ak sama boroom durant fanweeri guddi ca lay doogo dellu siwaat diggante boobu na nga jiite bani israil ca ngalawaay yéwénalal bul topp yoonu kenn ku yàq muy wane it ne kilifa war nay mel noonu heure boo jiitee ay nit sa taxawaay mooy taxawaayu yéwénal waaye da ngay gisit lu bari ci nit ñi bëgguñu loolu waaye yow mi kilifa fexeel ba yow bu leen topp ci loolu ah Moussa génn dem bi mu demee ñu daal di gis suñu boroom yàlla wëlbatiku ne ko léegi au lieu ngay def fanweeri fan na nga def ñiin fukki fan la ko waraloon xam ne leen ci mufassiru ni wax ne Moussa bi fanweeri fan yi jeexee dafa dem raxas gémmiñ gi alors borom bi nag ne ko xet bi nekkoon ci yow ngir sa koor loolu moo ma dàqal xetu misk tegaat ci fukki guddi kon mu ñin fukki guddi Moussa dem nag borom bi dalalaat ko ci tuuru Sina commencé di wax ak moom suñu borom ñaari jaam la ma sa waxal kenn ki mooy Muusa muy kalimullah ci suuf keneen ki mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca kaw asamaan ya fa ko sot keneen ku dul ñaar ñii da ngay gis day wax ak ñoom ci intermédiaire ñu ngi noonu Muusa borom bi wax ak moom day wax muy tont wax muy tont ba lim ko waroon a sant jeex Moussa nag na ko ay suma boroom ndax dooma may ma mën laa gis borom bi ne ko déedéet man dooma gis ba mukk lan toroon yi soo demoon ci yenn pas-pasu diine yi alhamdulilah bariwul ci suñu réew yi ay mu'tazila wala bu demoon tafsir mel ne ay zamashqari ak yu demee noonu ñoom dañu naan suñu borom ne na ko lan toroon yi kon yàlla ne na ko dooma gis ay yàlla kenn du ko gis waaye abadan mbokk julit aayay alquran yu dul jeex hadis yonent bi yu dul jeex saxal na ne julit ñi buñ jógee aljanna daan gis seen borom yal na yàlla boole ñu ca amma adduna ni ñu yàlla bindee waxuma suñu borom waaye malaaka yi sax mënuñu leen a gis am déet ngi noonu amma nag buñ demee ba ajjana suñu borom day bindaat nit ñi beneen façon mbindin ca la ñu doog a àttan gis borom bi mënoo maa gis Muusa xaaral moon la preuve bi wane na mënoo maa gis mu ne ko xoolal montagne bi borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax montagne bi muy tuuru Sina ci boppam wala beneen montagne bu fa nekkoon la ñi jàpp ne beneen montagne bu fa nekkoon la mu ne ko xoolal montagne bi la bu mu ko xoolee suñu borom dindi kiiraay yi dox digganteem ak jaam yi yonent bi alayhi salaam nee na juróom-ñaar fukki junni kiiraay la ñu ngi noonu. mu ne ba mu ba mu feeñoo montagne bi montagne bi dafa mokk rumbax maase ci biir suuf loolu kon moom effacé wu ci suuf ñu jàpp ne tuur Sina la ñoom dañu ne suñu boroom bi mu feeñoo montagne bi montagne bi dafa maase ci biir suuf gannaaw ba nag la ko suñu boroom yàlla doog a génnewaat montagne bi yaa ngi dégg fa ñu yàlla di wax naan wa rafa'na fawqakumu tuur ñu ngi noonu montagne bi bu yàlla mokkaloon ba mu dugg ci biir suuf yëkkati waat na ko même bani Israël bi ñëwee ba jàll ci tawraat mu yëkkati montagne bi mu tiim leen ka annahu zulla mel ni xiin bu leen tiim ba mu soob ko mu dog koo delloo place bu nekkoon almuhim Moussa ci boppam moom gis gim gis ni montagne bi def rek moom ca la tiiti ba xëm moom waaw moom bu doon moo gis suñu borom nu muy def loolu kon attanul loolu attanul loolu léegi mu xëm bi mu xamee ba ximmi ca la nag ne yàlla sell ñeel na la ay sell ñeel na la ñu lay gis ci kaw suuf moo ne day boo doxoon fii lu yàgg rek dajeeg benn waay mu ne la kaa ñu dama woon la yàlla da ngi noonu waaye mbokk yàlla du ko ñuy du ko ñuy gis ci kaw suuf abadan sell ñeel na la tuub naa maa ngi nekk njëlbeenu ñuy gëm la nga xam ne mooy sa mbàggaay bokk awwalul muminin lañ koy firee nekkul rek ne maay ki jëkk gëm waaye mooy pare naa ci nekk kenn ku gëm moo tax suñu borom di ñu wax wa inna ni wa ana awwalul muslimin mooy jullit day pare ci pas-pasu boppam waliyaasu billah bu àdduna yépp xëyoon di bokkaale yàlla yow pare nga nekk benn jullit bi wéetal yàlla ci kaw suuf bu àdduna yépp jógoon bañal yàlla ci julli koor yow pare nga nekk benn jullit buy jébbalul yàlla ci kaw suuf loolu tax jullit awwalul mu'minin awwalul muslimin yàlla na yàlla boole ñu ci jullit yooyu ci suuf
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين barakallahu fiik suñu borom mu ne qaala ya muusa ey yow muusa inni stay inni stafaytuka ala nnaasi bi risaalaati tànn naa la ca kaw nit ñi ci samay yonent yi ma la yónni wa bi kalaami ak sama wax ji ma la jagleel fa xuz ma aataytuka wa kun min ash-shaakirin jëlal li ma la jox ca nga bokk ci ñiy sant wa katabnaa lahu fi l alwaahi min kulli cheyin mawida bindal nañ ko ca àlluwoom ya ci lépp lu mën a doon ak xuppaate wa tafsilan li kulli cheyin ak luy teqalee ci lépp lu mën a doon muusa fa xuzha bi quwa loolu jàpp ko ci kattan wa amur qawmaka yaxuzu bi axsan wa amur qawmaka yaxuzu bi axsaniha santal sa xeet ñu jàpp ca la ca gën a rafet sa uriikum daaral fasiqin dinaa la woon la nga xam ni mooy dëkkuwaayu ña nga xam ne dañoo génnu topp sa asrifu an ayaati alladina yatakabbaruuna fi l ard bi gayri lxaq danaa dëpp ay fiiwéle ak samay aaya ña nga xam ne dañuy réy réylu ci kaw suuf ci lu àndul ak dëgg wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha buñ gisee bépp aaya duñ ko gëm wa in yaraw sabila rushdi la yattaxiduhu sabila buñ gisee yoonu njub duñ ko jàpp muy seen yoon wa in yaraw sabila lxay yattaxiduhu sabila heure buñ gisee yoonu cànkute nag ñu jël ko mu nekk aw yoon zalika bi annahum kazzabu bi ayatina li waral loolu mooy ñoom dañoo wedd suñuy aaya wa kaanu anha gafilin te dañoo nekkoon di sàggane aaya yooyu mi ngi noonu Moussa ximmi na ci tuuru Sina suñu borom yàlla jalla wa ala da ko Moussa xamal ne tànn naa la ci kaw nit ñi ca dafa ñaan yàlla ak ñaan yàlla gàntul ko ko muy won ne gàntu googu ko yàlla gàntu du ak doyadi ndax mboolem ñu doon dund ci kaw suuf yàlla tànn na ko moo ca gën tànn naa la ci kaw nit ñépp ci yonent gi ma teg ci yow ca it nga la way julit doonte ne ne ku koy dugal ci bopp Sénégal yi xawma ko e waaye nga la way nañu xam ne ku dul yonent rek yonent moo la gën suñu borom nee na dafa gënale yonent yi ci kaw seen biir waaye bu doon am na yonent bu tuuti le plus petit petit day yonent moo gën le plus grand grand grand day waliyu dala waay gëm leen loolu seen bopp yonent du du du moromu kenn yàllaa koy tànn kenn du ko fagaw kenn du ko sabablu ba ma aadama du jihaad du sabablu ba nekk yonent yàlla rek moo koy tànn ci ku ko neex ci ay jaamam ca wallahu aalamu xaysu yajalu risalata yàlla xam na fu mu koy def tànn naa la ngay yonent tànn naa la di wax ak yow ca am na yeneen yu ma waxul ak ñoom léegi nag kon li ma la jox jël ko mi tawraat ca nga bokk ci ñuy sant mbokk lan mooy sant ndax sant mooy ni ñu ko xamee suñu jamono yi tey ay waay nañu delloo sant nañ ko xamee woon ca jamono yeneen ti beegi sahabaam yeneen ti yàlla day yàlla santoon na ko mu sant nit ñi daan tëdd si ñu lool di nelaw mu taxaw di naafila naafila yoo xam ne jeunes sahaaba ya munuñu ko woon a topp ci loolu daana dem ba tànkam yi néew yi sallallahu alayhi wa sallam ba tànkam ya xar sallallahu alayhi wa sallam mu boole koog jooy yu métti sallallahu alayhi wa sallam ba ñu koy laaj ne ko ah yow mi yàlla yónni yàlla baal na la sa mbo mboole mi bakkaar mu ne afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk jaam buy sant sama borom mbokk sant yàlla mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu mooy sant bi gën a mag gannaaw ba sant yàlla mooy mboolem xiil bu mu bu mu la defal nga delloo ko fa neex yàlla ñetteel ba mooy la nga xame ni mooy sant yàlla boobee nga koy wax mu feeñ ci saw làmmiñ ba ñépp xam ne yow yàlla ngay sant ay Muusa bokkool ci ñiy sant baram bi nee na bindal naa ko ca àll wu ca àll wu yam yoroon muy tawraat lépp loo xam ni ak waaraate la buy war a jëriñ bani Israil ci àdduna ak alaxira ca tawraat ñi ngi noonu di kaddug yàlla yàlla bindal ko Muusa alayhi salaam Muusa boo demee téye ko ci kattan ca mbokk diine mi ngi noonu yambar du dund diine walla waay xam leen loolu yéen jeunes yi yéen jeunes filles yi képp koo xam ne amoo fit amoo fulla amoo fayda doo dund diine ndax diine suñu borom ne ne li ëpp ci nit ñi bëgguñu ko donc booy dund dans une société boo xam ne ñëpp dañoo riir jëm gauche yow nga bëgg riir jëm droite fokk nga ànd ak fulla ak fayda yonente bi alayhi salaam nee na axiru zaman mooy sama sunna dana mën ne mel ne mooy ci xalu sawara ngi noonu influence dana la jóge fu nekk way jur yi mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ku nekk dana la xëcc ci bida ku nekk dana la découragé ci sunna kon diine yàlla ji xuzha bi quwa jàpp ko ci dëgër laay ca nga sant sa xeet ñu jàpp ca nam gën a rafete am maana kaccoor yi ak lu ñu mën a nekkee ci lu xéewal sa urikum daal fasiqin danaa la won lan muy seen mucc ca mooy mujj kaccoor du baax mukk mbokk borom bi it ne samay aayaa ngi nii ñépp ñuy réy réylu ci kaw suuf ca tegguñu ko ci dëgg danaa wëlbati samay aaya ba duñ ko dégg bépp aaya bu ñu gis duñ ko gëm bépp yoonu njub bu ñu gis duñ ko topp bu ñu gisee nag yoonu caaxaan ñu daal di cay jël topp ca mbokk li alagoon iblis mooy rëy loolu it mooy alak li ëpp ci nit yi tey li ëpp ci nit yi tey bëgg yilif nit ñi nekk seen njiit boo laajee alal ñu joxe soo santaanee ñu defe loolu moo tax ba imma ña ca xam ak ña ca xamul yépp la yàlla bëgg ñu jaam yi jëfe ko duñ ko wax nit ñi bal dañ koy tëri nit ñi tëralal leen yeneen yoon woo xam ne ca la leen nit ñi di di gëme ca la ñu leen di toppe borom bi nag subhanahu wa taala nee na loolu moom moo koy defal képp ku réy réylu suñu borom nag subhanahu wa taala ni li ko waral mooy dañooy weddi samay aaya ca mbokk wallahi la nga xam ne mooy sabilu rushd di yoonu sunna kenn mënu koo xam lu dul mu jàngal la aaya yi borom bi kenn mënu koo xam lu dul mu jàngal la sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ demee ba diina ñu bëgguñu koo tënkal ci ay événement bëgguñu koo tënkal ci zikr yu ñuy def rek ca la ñu jàdde woon ray ba ñu yàlla tëraloon mbokk diina mooy qaala allah qaala rasulullah diina mooy téere bi yàlla bii di six mille nangam aaya diina mooy sunna yenent bi yàlla subhanahu wa taala aaral ñu ko tasaareel ñu ko ci buxaari ak muslim muwatta ak sunanu ahmad ila axiri loolu mooy diine bi nga xam ne képp ko bëgg a jaar sabilu rushd ci loolu ngay jàng tënku ci tënk ci sa njaboot borom boobu nag subhanahu wa taala ni li ëpp ci ñoom dañoo sàggane samay aaya te malheureusement comme niñ koy waxee woon ci tafsir bi passé li ëpp ci nit yi tey même bu ñu weddiwul alxuraan it toppatoowuñu alxuraan jàpp nañ ne am na leneen lu gën a yomb am na leneen lu gën a noppale dem naan da ngay gëstu alxuraan ak di topp alxuraan loolee mbokk da ngay gis ne mooy natt bi ñu yàlla nattu waaye loolu ak càggante la yal na yàlla yee ñu ca càggante googe ca delloo ñu ci yoonu yonente bi ak sahabaam mi ngi noonu Cheikh Ousmane
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين jazakallahu xayra suñu borom mu ne walazina kadabu bi ayatina ñi nga xam ne dañoo weddi suñuy aaya wa liqaai l axira ak daje ba ñuy war a daje ca alaxira xabitat amaluhum ñooñu day neen na seen jëf ya màbb na xabita arab da ko daan wax jur goo xam ne day am feebar bu ko néwwil boo ko séenee nga ne ah xar mi moo duuf fekk dafa néew yi day yàgg rek daal di toj daal di dee hal yujzawna illa ma kaanu yaamaloon ama ndax fay nañu leen lu dul lañ nekkoon di ko jëfe wattaxada qawmu muusa min baadi noonu la jële xeetu muusa ca gannaaw muusa min xuliyihim ijlan jasadan lahu xuwa noonu lañ jële ca seen takkaay ya benn sëll mooy nag bu ndaw boo xam ne dañ ko wutal jëm mu amit ay yuuxu ya nag di yuuxu muy xuwaa alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila mu ndax gisuñu ne nag wi day du wax ak ñoom ci du leen jubal ci aw yoon ittaxaduhu wa kaanu zalimin jàpp nañ ko ca ñoom day nekkoon nañ ay tooñkat walamma suqita fi aydihim ba mu demee ba doon nag loo xam ne nii lu ñu rotal la ci seen loxo ya wara aw annahum dallu ñu daal di gis na ñoom kat dañoo sanku qaalu la in lam yarhamuna rabbuna ñu ne cey bu ñu yërëmul suñu boroom wa yaxfir lana mu jéggal ñu lanakunanna min alxaasirin daañ bokk ci ña nga xam ne dañoo tooñ ñu ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne képp koo xam ni da ngaa weddi ay aayaam weddi alaxira dana am sa mboole mi jëf jëfi neen la te duñu leen fay lu dul la ñu waroon a jëf loolu tax yow jullit kii bokk ci médecins sans frontières fu ne mu dem fa di def bénévolat di dimbali nit ñi milliardaire bi jël alalam di jox jox nit ñi waaye nekkul ku gëm loolu lépp égal zéro ca yàlla borom bi wone bani Israil ne bi Muusa demee ci ñeen fukki fan yi mu waroon a déeyoo ji ak boroomam dañoo dajale la nga xam ne mooy seeni takkaay ca yàlla da leen a nattoo woon nit ko bon ku ñuy tuddee saamiri saamiri boobu ab tëgg la woon bu daan defar or mu daldi leen ne waaw nañu leen dajale or yi ngeen def ngeen def dajale ko am na yenn riwaayu yuy wax ne waaw bani Israël ñoo ko sàcce woon ci égyptiens yi dañ leen koo àbbu sàcc ko yóbbaale bi leen xaaru na ne leen lii dagganul nañ ko sànni ca la ko saamir yi moom dajale dem defar ci benn nag nag bi bi mu ko defaree mu fassiru yi am nañ ci wuute bi suñu borom ne mi ngi def xuwaar mooy mi ngi yuuxu comme di nag di yuuxu am nañ ñu ne da ko defar da forme ba nga xamee ne nii bu ko féetalee ak ngelaw li ngelaw liy duggee ci gannaawu nag bi mooy génn ci gémmiñ ji di am yooxu donte ne lu bari ci mu fas mooy nàññe nàññe nàññe naam donte ne lu bari ci mu fassuru ni dañ ne jibril alayhi salaam bi mu àndeeg Muusa pour dem di jéggi géej booba julli ñoom gisuñu ko mais saamir yi comme yéeféer la yàlla won na ko ko won na ko fasu jibril gis na fas bi fu mu laal tànkam rek ñax yi wow yu fi nekkoon yépp dañuy daal di tooyaat saamir yi tibb tànk fasu jibril boobee bi mu defee leen nag bi pare xëpp ko nag bi rek nag bi commencé dund di di naññi wallahu subhanahu wa taala alam boo demee ñay firi ci suratu taaha xabattu xabdatan min asri rasul fa nabastuha wa kazalika sawalat li nafsi aaya boobu lay junj foofu almuhim nag bi daal mi ngi yuuxu rek bani israel na kontaan ñu ne leen haada ilahukum wa ilahu muusa kii nag mooy mu yàlla yàlla ji la muusa di wuri fële waaye mbokk xoolal doomu aadama ci seen kanam lañ dajalee or bi lakk ko defar ko ci seen kanam ñu jël ko ni kii mooy yàlla ay même chose it dañ naan suñ cam dee na dee na ah dee na de waaw dee na loo mën a wax rek daa dee daa làqoog daa cib liggéey dee na bon léegi ñu jël ko sang ko lëmas ko dem gas suuf ba mu xóot dugal ci biir acca muuru léegi na ñu jàpp ne kii nga xam ne moom ñun ñoo ko jël ñoo ko sang ñoo ko gasal suuf ñoo ko sulal suuf léegi nag soxla bu ñu am nañ ñëw moom mu fajal ñu ko ndax gars yi xel mën naa nangu lii lii la bani israel def rek dajale seenu or defal ci seenu nag ba pare ne nag haza ilahukum wa ilahu musa mi ngi noonu haaruna jóg a fële ay yéen sama xeet innama fatintum bi lii fitna la bu jóge ci cheytan innama ilahukum rahman seen borom mooy yàlla mi nga xam ne laa ilaha illa hu ñu ne ko waay toppal fële mi ngi noonu lan nabraha alayhi akifina hatta yarjia ilayna Musa kii daal moom la ñuy jaamu ba Musa ñëw xam lu muy def waaye kii moom mooy yàlla bi ñuy jaamu mbokk suñu borom nag nee na ba mu demee ba Musa dellu si ba xamal leen seen erreur ba nag wa daat génn ci seeni loxo ba ñoom ñëpp ñu nangu ne ñu ngi nekkoon ci musiba ca la ñu tuub dellu ci yàlla ay yàlla ñun ñun day tooñ nañ suñu bopp soo ñu yërëmul nga jéggal ñu daan doon ñu alko na am suñu boroom baal na leen waaye baal ba ci charte la ko teg charte bu mooy lan dafa na Moussa waxal sa xeet qul yaa qawm innakum zalamtum anfusakum bi ittixaasikum al-ijl fa tuubu ila baariikum faqtulu anfusakum la leen yàlla wax mooy li tax mu baal leen da ngeen di reyante seen biir yàlla indi benn lëndëm muur leen ko nit ñi jóg ku nekk rek koo dajeel dóor sa baay sa doom kum mën a doon Muusa ak Haaruna di ñaan yàlla di ñaan yëg yàlla bam soob yàlla yàlla daal di koy dindi mu dee ci ñoom ay junni junni junni ñooñee dee yàlla di jéggal leen yóbbu leen àjjana ñi ci des yàlla subhanahu wa taala doogoo wax baal na leen waaye mbokk histoire yi buñ koy nettali xoolal ñi ànd ak yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa wane gannaaw 40 jours rek ci Haaruna ak seen biir ñu def musiba yi lu mel ni it moo ñu dal wallahi bari na suñu sëriñ soo xam ni tey bu leen yàlla jëlewaatoon barzaq ñu ñëw dégg li seen doom yi wax li seen sët yi di wax daañu am naqar bu raw ba Moussa alayhi salaam amoon bu ñu gisee li ñu leen defaral seen gannaaw dañu am dañ ko mabb tasaare ko comme ne Moussa tasaare woon yàlla yi Samiri ja ndax bu ngeen delloo suratu Taaha yéen ñëpp xam ngeen ko daf na Samiri gis nga sa yàlla yi nga defe ne mooy yàlla lanu xarriqannahu summa la nansifannahu fil yammi nasfa dañ ko lakk ba mu def doom ñu tasaare ko ci biir douche géej gi loolu mbokk kon ñu bàyyi ci xel bu baax ngan la waaye mbokk diine mooy li jóge ci yàlla jóge ci yeneenti yàlla lépp loo xam ne dañ koo rafetlu lépp loo xam ne dañ koo sos ak lu mu xumb xumb ak lu mu ah neex neex ak lu mu jëm jëm kanam jëm jëm kanam wallahi ak réer la lay dëgg du deñ di nekk dëgg ba ilaa yumi diin lay neen du deñ di nekk neen ba ilaa yumi diin qul laa yastawi alxabiis wa tayib walaw ajabaka kasratu alxabiis lu bon ak lu baax du yem ak lu bon lum la yéem yéem lan la ci yàlla teg fattaqullaha ya ulul albaab ragal leen yàlla yéen borom xel yi mbokk diine borom xel moo ko mën a dund yàlla na yàlla boo la ñu borom xel yi jëfandikoo seen xel wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw ki day wax rek ne ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam amoon na ci weer woo xam ne nii da ko daan taamu ci ay takk soxna wala kulli xaal ko mel ni ay Aysa day daana wax ne yonent bi alayhi salaam doon ko yee muy ànd ak ay soxnaam ci shawaal shawaal mooy gannaaw bi koor gi jeexee muy korite donte ne ci lislaam amul benn weer bu ñu gaafal amul benn weer bu ñu gaafal su ko defee loolu di mbir moo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax maa ngi fàttaliku benn ndaw bu mës a ñëw ci man ne ma man dafa am koo xam ne dañuy waxante ba pare parents yépp d'accord nañ mais dañ ne baraxlu bi duñ ci takk soxna ak koor gi il faut ñu bàyyi ba yee passé waaye léegi nag comme ñëpp d'accord nañu man joxe naa li may joxe ndax imam mën naa commencer avant ñuy takk mën a ko def non mais ca da ngay gis danger bi wallahi mi ngi ñëw ci man laaj ma mais ku mel noonu seytaane mënoon na ko yóbbu su ko defee ngeen gis rek biddaa li mu mën a jur ci gàttal daal kon amul benn weer boo xam ne gaaf na ñu takk ci jabar wala suy jabar amma nag boo mënoon taamu shawal bay moo gën wallahu jalla wa ala alam naam waaw am na mbir beneen bi beneen bi mu ne la waaw kii gént dafa gis am daal gént bu koy sonal rawatina ab jigéen bu koy topp kaza wa kaza ala kulli xaal mbokku gént moom moom liñ ci yonent bi alayhi salaam wax waxoon lu simple la lu simple la mooy doomu aadama bi da ngay gént lu neex boo géntee lu neex su boobaa boo xëyee bu ko netti di lu dul koo jàpp ne bëgg na la nga gént lu naqari su boobaa ëffal sa côté càmmoñ ñetti yoon nga ne yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci sey ayu seytaan musal ma ci ayu lii ma gént bu doon droite nga tëddee wëlbatikul tëddee gauche gauche nga tëddee wëlbatikul tëddee droite ca sa xel dal loolu du la lor loolu du la lor mu ne nag ndax mën naa génne ay sarax sarax moom doomu aadama mën na ko génne toujours waaye daal bu dee ne gént moom lii lañ ca yonent bi alayhi salaam jàngaloon wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah dañ doon julli ñu dem ba ci ñaareelu rakka bi doog a fàttali ku ne liqaamuñu mbokk liqaam loolu dafa nekk ci sunna yi ñu sopp avant ñuy dugg ci julli gi waaye boo xesew def takbiratul boo xesew def takbiratul ihram su booba liqaam ba moom paase na ca yàqul ci julli gi dara li ñuy bañ daal bu ko tey mukk di bàyyi liqaam bu dee yow rek la wala ngay mbooloo amma bu dee ne da nga koo fàtte ba def takbiratul ihram su boobaa amul lenn loo war a def lu dul continuer su julli rek ci incha allah it julli gi doon na julli ko baax ñu ngi noonu mbokk jullit waaw xanaa ñu mujj ca mbokk bi rek ngeen baal ma waaw waaw. non yooyu yooyu waxi gàmmkat la ay Moussa Samiri ñu naan Jibril moo ko yar Jibril yarul kenn yaa ngi dégg loolu moom ay waxi daanukat rek ñuy wax wax yu demee noonu waaye ala kulli xaal Moussa Samiri nit la woon koo xamee ne nii nit ku bon la woon alors loolu moo tax ba mu mën a def jëf ju bon joojee mu def léegi nag comme ni ma la ko waxee rek. borom xam-xam yam nañ ixtilaaf ci nag ba nan la ko defere woon waaye lu ci mën a am moo dine ne suñu borom ay yéeféer léeg-léeg mu wan leen loo xamee ne nii ay nattu lay doon ci ñoom loolu waaye firiwul ne sa mbiri dafa mas a baax déedéet ku bon la moo tax mu daal di deeyaale alkaange gu mag googu mu deeyaale mi ngi noonu xam naa ne waaw xam naa ñu jéggal mbokk bi rek xam nga mi ngi noonu yaram bi dafa xaw a kii tuuti yal na yàlla saafara ñu saafara leen saafara bépp julit defal ñu taw afiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain